mooy le groupe Takefa et cette personne là qui calme le commissaire. ça c'est mon épouse euh, au-delà de toute considération je dis à ses enfants bu ngeen dofee ba seen yaay ci leen di ngeen am lu leen naq di ci àddina te du ngeen réussir. lu tax. c'est la plus grande des mamans li mu àttan def ci doom jafe na gis nit ku koy def ci doom. c'est un témoignage franc et sincère ba mu nekk ay défaut mu nekk ay taar ci moom seetul lu mu mën lu ma mën dafa mësa taxaw bakkanam bii mu jox ko ay doom ak ay doomu jàmbur bakkanam bii mu dund ko pour que ay doomam ak ay doomu jàmbur yi ko jege mën a bénéficier de sa largesse ça il faut le lui reconnaître au-delà du fait d'être mon épouse parce que je l'ai épousée maa ngi lay wax naan la bi ma nekkee xale kii moo dàqoon fecc ci Sénégal moo taxoon mu rafetal suñu ànd suñu masaan taxaw ci benn pistu baal nit ñi duñu fecc ñun ñaar ñooy fecc soo ci tegee loolu mu nekk moo épouse nous avons sept enfants ça veut dire que on a vécu là de ça sa marque c'est de savoir être une maman et il faut la féliciter pour ça yàlla na yàlla la fa cet alors vous parlez d'elle et lu tooyal sa xol. parce que noonu la àddina noonu la dund la yow da ngay am dund et quand on surprend une personne avec une question su fekkee nit dafa dese nekk nit rek suy wax lu nekk ci yaramam day génne ne li muy wax dëgg la et c'est là sont le signe de ce que je dis vrai il faut la respecter celle-là pour ce qu'elle est il y en a d'autres mamans qui sont là mais man bii laa xam ak keneen ak keneen mais il faut la respecter pour ce qu'elle vaut elle a donné sa vie pour des enfants, avec tout ce qu'elle peut avoir comme qualité, avec tout ce qu'on peut lui rapprocher. C'est une grande dame. Alors, la dernière question, mënuñu bañ a wax ci alité bi très rapidement en quelques secondes li xew Ngor ñu gis ay